dugg ci flamme yi pour dem sauver leen alors que bi ñu leen di sauver fekk nañ fukk ak benn yi lakk ba xëm moo lay wan ne daf mbir mi c'est une catastrophe dafa dafa jéggi dayoo ci li nga xamante ne moom la ñu gis démb ci guddi ba tey koo gis rek di nga sentir ci kanamam ci jëmm wala ci xolam naqar boo xamante ne inexplicable kenn mënu ko expliquer parce que euh, dafa dal Sénégal dalal Sénégal dalal Sénégal ñu am réew boo xamante ne souvent dañu koy wax fii ñun daanaka ci sunu journal commenté yi nga xam ne dañu koy def fii muy le matin muy le soir tout le temps amu ci benn bés boo xam ne doo ci dégg ci li ñuy wax ci le secteur de la santé. tout simplement parce que nous avons un secteur de la santé boo xamante ne plus malade même que les yi nga xam ne ñoom ñoo fay dem foo mënti dem nag maa ngi dégg sànq Pierre Claver Pouy di wax Thiès c'est-à-dire nga dem hôpital yu Louga te moo tane parce que da gis ne tund boobu nga xam ne Thiès foofu la nekk mu lim ko sànq wax na ay mbooro ki nga xam ne moo def léegi témoignage bi mu dëkk benn dëkk boo xam ne ginnaaw pekkees nga dem ay pekkees dem ay cilmaxa dem ci zone yooyu nga xam ne moom moo wër Thiès képp ku am malaat te bëggoo ñëw ndakaaru ndax xalaat nga ne ndakaaru dina xat ndax dëkkin bi metti gi muy metti ak parfois fan ngay dal da ngay préféré yam cees ndax yaakaar ne Thiès moom mooy deuxième ville boo xamante ne war na mën a am matuwaay ak jumtuwaay yoo xam ne di fa mën a faju te doo am problème mais gis nga foofu noonu nga xam ne moom mooy Thiès tey problème bi mu am bul xam yeneen hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi gën a sori la capitale nan la ñu mel capital bi nan nan la mel déjà yow amoo bërëb ba ña ngay wax ne dañuy def enquête mais bu ñu ko deful njuuj njaaj lëndëmal nit ñi c'est sûr que la nga xam ne moo fat fukkitu tànk ak benn mooy wane amuñu sax li nga xam ne mooy détecteur de fumée. waaw ak yeneen i jafe-jafe. ak yeneen i jafe-jafe mais mais fàttali mhm. également une information qu'on qu'on vient de euh, de nous euh, donner mooy le président de la République euh, euh par décret numéro 2022 1170 du 26 mai 2022 a déclaré un deuil national de trois jours. à compter euh, tey muy kon euh, deuil national euh, les drapeaux seront en berne euh, yenn ci ay festivités pour ne pas dire toutes les festivités également euh, seron interdites sur l'ensemble du territoire durant ces trois jours de deuil national ñu tàmbali ko tey ndax fukk ak benn tout tànk yooyu nga xamee ni ay liir lañu ñu faatu ci lakk bi ak anam bi mu bi mu demee fële ci hôpital Euh, El Hadj Mame Abdou Aziz Sy euh, Dabakh fële ca ca Tivaouane mhm. c'est tout à fait normal gis nañu yenn réew ba démb xaw ma bërki démb ci mhm. mujj ca États-Unis xale yu ñu faat ci benn benn école euh, ku am fukki at ak juróom-ñett faat xale yi yore fetalam di roose gis nañu président ba ne ni si saa si la mu doon def yëpp mu dakkal ko dem ñëw taxaw gouverneur région ba mu am wala état ba mu am ku ci nekk taxaw fa mhm. dem fa wane ni Euh, trop c'est trop il faut que ça s'arrête bay mhm. wax naan ne ñu xoolaat mhm. ci lu jëm ci wàllug euh, euh, ngànnaay ni ñu koy joxee foofu ci États-Unis mhm. nga xam ne boo amee fukki at ak juróom-ñett rek mën ko am tey ce qu'on attend du président certes day national c'est tout à fait normal Euh, ministre de la santé nee na il va écouter son séjour mu ngi ci yoon bi kon di jóge Genève di ñëw président de la République lañ bëgg gis Mansour ñu lal ci politique ba mu ëpp bu dee fii hmm. Sénégal sànq mi maa gis benn politique benn politique moo yónnee message naa Mansour li nga wax wóor na la c'est-à-dire que ñoom taluñu sax li nit ñi di wax hmm. xamuñu ni nit ñi on est plus responsable que amuñu droit di wax loo xamante ni waxu caaxaan la mais bala ñu egg ci ay émotion ak yooyu ñu wax loo xam ni réalité la ci li sabab accident yi li ma wax ñoom ñoo ko bind mu nañ naññi fukki centre de santé la ñu transformé ay hôpital niveau un lim naa defe naa ni dëkk yi mu nekk sànq. Eva Marie Coll Seck bi muy avant mu fiy jógee daf fi bàyyi woon li ñuy wax soins respectueux manque de soins respectueux moo sababoon xale bi faatu. ki mhm. nekkoon euh, Louga euh, ndaw si doon am doom nu mu tudd. soxna so euh, astu soxna astu soxna mhm. bu fekkonte woon ni li ñu bind dëxëñ ko mu nekk ci seen këyit yi nekk ci ministère de la santé ñu koy wax soins respectueux kii ñëw dina am accueil parce que Mm, li nga xam moom mooy mooñ àdduna bi yëpp li ñu tënk ci wàllum faju dañ ni Fatou Abdou Ndiaye yëg na tawat ci yaramam Fatou bi mu ko yëgee xam nañu dafa war dem faju ji est-ce que dem na. Mm. waaw dem na bi mu demee ndax gis na ko koy faj. waaw gis na ko est-ce que li ñu ko orienté ndax moom mun naa jënd lool mun naa jël boppam en charge pour faju waaw léegi kon la moo des ñu boole ko ak ki koy faj ki kay faj nan la ko accueillir. loolu mooy ñoom ñoom ñoom ñoom ci seen rencontre yi ñu mujjee def nii nii boole nañ ci li ñuy wax violence obstétricale violence obstétricale bref xam nga loolu dafa grave te tey yooyu dañ ko def ay document mu nekk seen ay loxo ñu gis ni jigéen ñiy mucc dañu leen di violenter ci façon boo xam ni wóor na leen ni mënuñoo am doom am doom gu normal mm-hmm. te wa loolu dañu ko war xeex ci hôpital yi moo fi jóg ba nga xamante ni nit jigéen buy am doom dañu ko war a assister comme ni ko organisation mondiale de la santé joxe depuis 1996 que Birahim am na sañ-sañu taxaw assister sa femme buy mucc ba léegi joxuñ ko valeur Sénégal dañ koy bàyyi ñaari sage femme ñu koy violente ci biir. ñu koy wax violence euh, obstétricale mu def ay sekkal yu doy waar yoo xamante ni bii nikki daf koy daf koy nekk victime loolu rapport la mi ngi ci ñoom yooyu ñun bu ñu ko xamee ministère de la santé la ñu ko xamee mais nag ministère ba dafa am ay politique am ñu politikul am ay borom xam-xam ay kay techniciens yu disponible bu jox la xam-xam boo xam ni kenn du dindi li ngay wax boo nekkee politique nag bu la politique boolee ci mbumbaay mi yow lépp politique lay doon eh, comme ni mu amee même ci même ci direction yi eh, xam nga ni bu xam nga ni tey Sénégal mun naa la joxoñal nit ne kii président comité de santé la woon te tey moo jiite béréb bu fajukaay ba président comité de santé tey moo jiite béréb bu fajukaay ba fii Sénégal pour wax la politique ni mu yàqee. li nga xam ne moom la laaj ci wàllu xam-xam ak wàllu doxalin et Sénégal mooy nekk victime même court-circuit même centre de santé bu ñu transformé moo am Linguère moo am Tivaouane waaw bu ñu leen ko annoncé te mu nekkoon ci ay rapport doo leen précipité xool yeneen huit centres de santé yu ñu transformé ay hôpital ngeen wax direction bi yor wàllu infrastructure maintenance ak équipement gaawantu leen ndax seen personnel ak seen représentant yi nekk ci centre de santé yu ñu transformé ay hôpital est-ce que ñoo ngi def seen liggéey ci na mu jaadoo est-ce que place bi ñu ko waajal moom la wala déet parce que sa waay benn façon jaan bi la màtt bi ñu màtt sa mbokk mu dee mu màttal sa beneen mbokk mu dee te mu ngi ci dëkk bi jeexagul mais boo xëyee li war a nekk sa yitte mooy rëbb jaan jooju bu dootu fi màggee. li li li taal hôpitalu hmm. Linguère moo taal bu Tivaouane coup de circuit la. fi mu ko fi mu ko ko taale woon mooy fi ay liir nekkoon foofu la taale bu tiwaawoon te des na yeneen juróom-ñett yi ñuy def comme noonu yu ñu transformé hôpital waaye duñ ko dogaale du loolu gënu ay tontu politique ak émotion yi ak yeneen ak yeneen quand même euh, muy loo xamee ni nag euh, jamono ji ce dont les populations ont besoin mooy ku leen ku leen taxaw ñu ngi koy sànq di joxe exemple États-Unis nga xamee ni ci benn état ci li fa nekk yëpp ci état mu am jëye yooyu nga xamee am na fa président ba euh, ñëw fa taxaw ci état ba def discours boo xam ne nation euh, américaine bi yëpp ko bokk président la république nag ñu ngi xaar ci wàll woowu ndax euh, li ñu naan trop c'est trop énième victime euh, ci ay structures de santé yoo xamee ni plusieurs questions pas de réponse pour le moment ndax lu mel ni hôpital lu mel ni crèche xanaa lu ko jegee war na am sax bouche d'incendie war na am ay extincteurs yoo xamee ni Euh, nit dina ko mën a jëfandikoo mais surtout dina am nit koo xamee ni ay nit ñoo xamee ni dañ fay nekk sur place. boo amee équipement est am na euh, personnel fa nekk ay nit yu fa nekk xool li fay xaw ba nga xamee ni euh, début d'incendie ñëpp xam nañ luy début d'incendie waaye bu tàmbalee ñu mën ko teel a fagaru dañuy ànd tamit ak koo xamee ni dafay yëngu ci wàllug métier mi Mballo Dia Thiam jiite tamit syndicat buy yëngu ci wàllug wér-gu-yaram. Euh, alerte ngeen ci hôpitaux yi ñu waaye niveau un euh, poste de santé wala centre de santé bu ñu soppi Bara Dia am ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Ibrahim. Mhm. waaw Mballo ci au-delà de l'émotion structures yi de santé yi nekk Sénégal jafe-jafe mu ngi fii yéen a ngi ci ay ñaxtu bokk na ci la ngeen di ñaxtu justement muy ci wàllug li ñuy gérer hôpitaux yi euh, li fa nekk ci wàllug infrastructure la ngeen fa soxla euh, ci infrastructure euh, tey qui est responsable de ce drame. allo. Balo Dia Thiam. waaw Biray waaw maa ngi dégg bu baax. waaw ma ne tey kan lañu ñu mën a joxoñ baaraam tuuma ci li nga xam ni xewati na ci hôpitaux yi. waaw li xewati moom vraiment nekk na lu. jéggi dayoo et puis ñu ngi àndak ak euh, sénégalais yëpp di ko naqarlu comme ni ngeen koy naqarlu seen plateau boobu lay parce que bis bu doomu aadama génn àddina rek nu mu mën a toll rek nekk na naqar nekk na njàqare ah, waaye nag euh, baaraamu tuuma pour teg koon dafa nekk baaraamu tuuma bu ñu war a mun a teg ku ci nekk képp ku xam daal seq na mbir mi parce que euh, problème mu incendie la ñu wax maanaam lakk bu am Euh, ci service yi néonataux te loolu amoon na fi Linguère euh, parce que circonstance yu mel noonu ñu ne court circuit woon bi tam nee nañ tam court circuit la maanaam courant boo xam ni dafa ëpp daal di jéem a daal di taal la fa nekkoon ba tax na nag convoqué na problème mu maintenance bu dee court circuit la mais convoqué na aussi xëy na Senelec aussi bu fekkee ni courant bi mu fa yóbbu nekk na courant bu jéggi dayoo loolu moom mënu ko wax enquête moo ko mun a wax wante li ci am solo mooy war nañ gën a fagarliku si loolu pour que euh, situation yi bu waree mun a am mu am leen loo xam ni moo ko war a fànq te que fu mu nekk nii ak modernité bi fu mu toll affaire euh, fumée yu détecteur de fumée yu mel noonu lu benn lu bari am na loo xam ni war nañ ko wante nag loolu si hôpitaux yi eh, dafa tumuraanke si lu bari maanaam mu maintenance amuñu ay maintenance yu bari ñu ngi loolu pour que école Diourbel bi nga xam ne école maintenance la nga xam ne Allemagne ñooñu ko mayoon vers les années soixante dix quatre vingt pour ñu ériger ko école ingénieur maintenance wante ba léegi dossier bi mi ngi traîner. leneen li aussi mooy maintenance yi nekk ci hôpitaux yi aussi. ñu ngi def li ñu mën wante équipement ci boppam dafa laaj ay yu bees mais yu bëri am na équipement yoo xam ne xëy na ku mel ni hôpital boobu am na yu bees yu mel noonu am na yeneen yoo xam ne non seulement beesul pour nga am sax budget euh, pour nga investir ci maintenance ci ci équipement yu bees dafay poser problème surtout que équipement yi aussi dañuy gaaw a changer dañuy dañu gaaw dañu gën a cher aussi seen biir am na équipement yoo xam ne dañu koy may yoo xam ay non la waaw aussi mën na poser problème par endroit léegi nag li ci am solo mooy sànq dama dégg Mansour bi nga xam ne maa ngi respecté bu baax ay propos euh, mu wax ci affaire yu jëm ci ay responsabilité yu demee noonu or jëm euh, pour rappeler rek euh, dafa nekkoon beneen division bu ndaw au niveau de la DAGE du ministère de la santé mooy la direction disons Euh, de la direction bi di gestion bi administrative ak yu loolu noonu ak équipement yi mu nekk division bu ndaw foofu la jéem alors que ay ingénieurs ñoo fa nekk ak ay architectes sur ça pour revendiquer mu ne jéem dañ ko war a ériger en une grande direction pour que mu mën a toppatoo équipement yi ak maintenant si au niveau national loolu c'était du temps du de de maître Ablaye mu nangul ñu loolu mais mu def ko ñaari direction benn bi mu tuddee ko DIM benn bu nekk jéem ñu dem ak grève ba ñu delloowaat ñaari direction yi mu nekk jenn une direction des infrastructures des équipements et de la maintenance mais direction bu aussi dafa nekk direction transversale bokkul ak direction bi nga xam ne mooy toppatoo hôpitaux yi dafa am une direction générale récemment lañ ko érigé des amas santé mais li ko lal woon mooy direction des établissements publics de santé euh, ba tax na nag boo gisee may wax loolu c'est parce que direction des amas santé moom mooy saytu hôpitaux yi lan moo nekk waaye hôpital bu nekk dafa am autonomie am conseil d'administration di gérer son budget di am ay subvention di ko lijjanti wala di am par la coopération aussi yeneen mbir donc sur cette question la jéem daf ci amul benn responsabilité si sinon responsabilité d'encadrement ba tax na nag bu loolu wéyee aussi ci affaire yu jéem ñun ñoo ni gouvernement bi comme que bi ñuy érigé hôpitaux en deux en quatre rek créé ay hôpitaux de niveau trois ak ay hôpitaux de niveau deux hôpitaux de niveau trois yi mooy tous les hôpitaux yi nga xam ne universitaires yi ñu ko fa woon de niveau deux yi mooy les hôpitaux yi nga xam ne moo des hôpitaux régionaux ah ba na ñu ne ko nag booy wàññi da nga war a commencer ci benn et non commencer ci ñaar ak moo tax ñu revendiquer l'érection des hôpitaux de niveau un mu nekk des hôpitaux yu xam ne ñoo nekk le pro ñu nekk ci proximité bi parce que hôpital bu la gën a jege rek nga mu la gën a wàññil say say jafe-jafe maanaam euh, accessibilité géographique accessibilité financière ak yu mel noonu loolu moo fondé woon suñu revendication bi ñu ne nag am na ay centre de santé yoo xam ne fi ñu toll nii dañuy def médecine def chirurgie def obstétrique maanaam ñu naan MCO ñooñu tey jii xaalis ba fa nekk ak dayoo ba ñu am war nañ leen mën a ériger en hôpital de niveau un euh, ba ba tax nag département bu nekk war na am hôpital de niveau un moo gën ngay jóge ci département dem ci région pour ay évacuation ak yu mel noonu nguur gi nangoo ñu ko daal yi ni am na fukk yu nga xam ni érige mën nañ leen ériger en hôpital de niveau un mooy hôpital Tivaouane boobu si la bokk Ndaamaatu si la bokk Kaffrine ci la bokk Youssou Margane bi ci la bokk ak polyclinique ak Roi Baudouin ak yeneen yoo xam ni boobu mënu ma du ma cité yëpp mais gouvernement bi li ko waral aussi mooy bu mu érigé hôpitaux yu en hôpitaux de niveau un mu transformer génie civil bi parce que presque un milliard et quelque waroon nañu ko fa def pour changer bâtiment yi changer yëpp ak yu mel pour mu nekk hôpital au nord malheureusement li li kii wax euh, Mansour loolu la dañoo contenté wu ci centre de santé bi nu mu meloon ñu ciy changé ay quelques aspects di ko jéem a comme par exemple Youssou Mbargane mu ngi ba sotti ak yu mel noonu loolu mooy la grande difficulté parce que effort hospitalier def nañu changé hôpitaux yi ay entreprise yu dul générer bénéfice mais yu équilibré ses comptes mais génie civil bi dafay changé parce que hôpital bi dafa war a nekk beneen hôpital bu hôpital ba mu nekkoon hmm. malheureusement première génération hôpitaux de niveau 1 e moo fi nekk ba léegi ba léegi amul beneen génération hôpitaux de niveau on dafa waroon mun mën a ko ne surtout ka avec acte trois de la décentralisation tey région bi dem na yoonam normalement ku ci nekk sa département war nga mën a nekk hôpital de référence ultime donc loolu laa si boo yokk ci par rapport à ça mais loolu génnewul dara pertinence su hôpital bu nekk dafa nekk au nord parce que ay nit ñoo fay dajeew ku dégg bëccëg te hôpital ku wax courant wax nga oxygène wax nga gaz wax nga lu nekk parce que lépp lañ ci atal daal nekk ci kër mi ngi ci hôpital ba na ku ci nekk war na am ay responsabilités yi nga xam ni dañ ko war a situer ku ci nekk am sa part de responsabilité yenn yi problème de comportement humain parce que ay problème maintenance am na maintenance préventive appareil bi ñu la nga jéem ko lijjanti seet ba du am benn benn jànko benn problème boo xam ne mën na tax mu tàkk parce que benn sa kër am na prise yi nga xam ne boo deful ndànk mu mu tàkk prise yi ci boppam te prise yi fu mu nekk nii eh, yàlla xam doy na ah, ba tax na aussi bu loolu wéy aussi am na lu nga xam ne aussi kër gi la la war ay problème extincteur ak yu mel noonu xëy na ñoom nee nañu am na extincteur yi ko utiliser ak yu mel noonu mais da ngay auto yu bare extincteur yi lañ koy wékk nekk mais am na ñoo xam ne nekk na fa mais xamuñ sax nañuy ñuy taale extincteur wala ban côté lañ koy dugal bu fekkee lakk am na mu nekk ay problème sérieux ak les comités d'hygiène salubrité maanaam problème daal bari na ba tax na solution yi aussi ñàkkul parce que il faut que ñu jéem a penché wu ra si loolu comme ni ñu waxee ni école maintenance ci Diourbel bi comme ni ma ko waxee woon dañ ko war a def école d'ingénieur parce que dañoo soxla ñooñu maintenancier yooyu première génération bi sax nga xam ni dugal leen fonction publique ñu ñëw revendiquer bu ñu dugal leen fonction publique ñu gën a yi ñoo ñu ko mën vers les années quatre vingt quatre vingt yokk si débat bi di masawu nekk di affaire regrettable waaye nag ku ci nekk nga xam ni war nga def introspection nga nekk directeur d'hôpital nga nekk agent nga nekk aussi usager mhm. ak ku ci mënta doon ku nekk jël ses responsabilités xam ni mhm. safara moom bu ñëw du tàgg jërëjëf merci Bara Dia Thiam hmm. yaakaar naa ni c'est euh, euh, euh, quelqu'un qui est revenu sur. ah oui di ma lépp moom mooy suñuy interrogation. parce que xam la ñu ngi koy wax sànq. beaucoup de questions. pas de réponse te pourtant li mu wax lu leer la ñu may xamal ni le président de la République a également décidé d'écourter son son séjour te ñuy fàttali ni li mu nekk président Union africaine. Euh, am discours d'ouverture bu mën a def ni que ëllëg euh, ci euh, sommet boobu nga xamee ne ci la nekk ci lay ñibbisiwaale kon ci ci ëllëg si bon c'est c'est en tout cas l'information qu'on qu'on me qu'on me mais fàttali donc kon ñetti fanub dëj muy deuil national Mansour yaa ngi koy wax sànq Mballo kii na la Mballo Dia Thiam na ko Fatabdou le problème est profond très profond. Mhm. c' est pas première fois ñu ci wax mais boobu ba tey euh, xew na Linguère ñu ne nii def nañu ay rapport euh, waaye la waroon a xew démb wala la xewoon Linguère démb mënoon na am sax mënoon na mënoon nañ ko fagaru ah, fàggu ko ba nga xamee ni am donte accident day am waaye nag euh, lu mu néew néew nañu fexe ba def lu maximum apparemment cela n'a pas été ce qu'on fait ce qu'on jamais si euh, euh, moom moom moo ci am sànq yaa ngi koy wax man bi ngay wax le président de la république dafa décréter de national li ma xalaat moom mooy le président de la république fu mu mënti nekk ci àdduna dafa war a ñëw dem ba fa nga xam ne moom mooy hôpital bu Tivaouane gisante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci hôpital bi mais également les parents